Diaw, effectivement, nous recevons maître euh, jallo euh, Diallo. Il est l'avocat de Boubacar Sey de Horizon Sans Frontières qui a été arrêté aujourd'hui au niveau de l'aéroport euh, international Blaise Diagne de Dakar. Maître, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui est reproché à Boubacar Sey Horizon Sans Frontières bonsoir à tous les téléspectateurs. Et depuis l'année dernière, je ne me suis pas présenté devant les plateaux télé. Mm. L'occasion pour moi peut-être de souhaiter les meilleurs dans ces conditions extrêmement difficiles mm. où l'essentiel de leur liberté sont restreints. Mm. Euh, pour revenir donc à votre question, euh, il faut dire que si moi je me suis déplacé à la demande d'Amnesty International, dont je suis le président par c'est parce qu'au moment où il avait été arrêté, il ne savait pas exactement ce qui était reproché. Comment ça s'est passé réellement avant de venir sur les raisons euh, Il ne savait pas, il, a, il était parti en vacances comme chaque année voir sa famille en Espagne. Mhm. Il faut savoir que M. Babacar a vécu en Espagne, sa femme y vit, ses enfants également. Il a décidé volontairement de venir s'installer au Sénégal et que c'est à l'occasion qu'il se rend en Espagne pour rendre visite à sa famille. Mhm. Et à l'occasion de chaque fin d'année, il sera en Espagne pour cela. Et c'est au moment de revenir, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, qu'on l'a arrêté. <laughs> Mais sur ça, il faut savoir que les gendarmes ou les policiers qui l'avaient arrêté savaient que ce jour-là, hier nuit, il allait atterrir à Dakar parce qu'avant de venir, il avait parlé avec un agent des forces de sécurité et de défense. Et les forces de sécurité et de défense avaient reçu mandat de, de l'arrêter Il a été arrêté au commissariat de l'aéroport

n'est-ce pas, chargé des émigrés, ou oui. des Sénégalais de l'extérieur, M. Moïse euh, mhm. avait apporté un démenti. Oui. donc, lui, c'est la raison pour laquelle il est parfaitement surpris mhm. de qu'aujourd'hui, pour des faits qui ou 4 mois, mhm. qu'on l'arrête qu'on l'arrête comme ça, vraiment sérieuse. est-ce que vous pouvez revenir sur les allégations qui ont été faites Qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque Bon, à l'époque, il a simplement, il avait simplement dit, c'est connu de tous, c'est pas violer le secret d'une enquête. Oui. Euh, il avait dit que le Sénégal doit quand même s'arrêter, faire une évaluation sur les fonds que l'Espagne, en tout cas l'Union européenne, oui. avait affectés au Sénégal pour la gestion des questions relatives à l'immigration. Mm -hmm. Et donc, il a estimé qu'il y avait quelque part des détournements. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on semble lui reprocher. Alors surtout qu'en comme je l'ai dit tout à l'heure, mhm. le ministre de la euh, de l'extérieur, en tout cas le secrétaire d'État de Sénégalais de l'extérieur, avait apporté un, un, démenti. Mhm. Donc nous estimons, nous en tout cas au sein de Amnesty, mhm. qu'il s'agit là quand même d'une arrestation arbitraire qui ne repose sur aucun fondement, puisqu'à proprement parler, M. Babacar Sey est membre d'une organisation, quelque part, de défense essentiellement des questions liées à l'immigration. donc, s'il se prononce sur ces questions-là, c'est quelque part, on cherche à le museler et donc l'empêcher d'exprimer une, euh, liberté, n'est-ce pas, par rapport aux préoccupations de l'organisation. Qui chercherait à le museler Qui, l'État. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, euh, de source sûre, l'on sait que ces décisions émanent des plus hautes autorités de l'État. Et donc permettez quand même à cette occasion, à Amnesty, nest pas, de marquer son indignation et de demander solennellement, mais fermement, mhm. sa libération immédiate. Mhm. Et donc vous mettez en cause la tutelle, le, ministère des Affaires étrangères Non, pas le ministère, les plus hautes autorités, je pas rentrer dans les détails. Mhm. J'espère que vous me comprenez, monsieur Fall, à ma qualité d'avocat, il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas revenir. Mais toujours est-il qu'il faut comprendre qu'il s'agit d'une décision qui provient des plus l'on ne comprend pas pourquoi subitement mhm. l'État du Sénégal veut empêcher un citoyen qui mhm. demande à ce que rende compte, parce qu'il faut savoir que l'État a l'obligation de réduction des comptes, mhm. on arrête ce citoyen simplement parce qu'il a demandé, n'est-ce pas, il a formulé une demande parfaitement. Et présentement, il est entendu où Présentement, il est à la section de recherche. Mm entendu, C'est vrai qu'on lui avait notifié son droit de se faire assister par son avocat, mais comme lui estime qu'il n'a absolument rien à se reprocher, eh il a accepté avant que je revienne, moi, mm. qu'il soit entendu hors de la présence de son avocat. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, il pensait que comme c'est juste des explications que lui demandait, il allait les fournir et partir. malheureusement, semble-t-il, il a été gardé à vue. Mm-hmm. Et selon les informations que j'ai reçues également, au parquet mm-hmm. que cette situation est gravement anormal. Euh, sur le plan des libertés individuelles et collectives inacceptable. Mhm. Même si aujourd'hui on est en période d'état d'urgence, mhm. nous estimons que pour des propos qui remontent à plus de trois mois, il est inacceptable qu'un citoyen sénégalais de surcroît qui se bat pour la prise en charge des préoccupations d'autres Sénégalais, des jeunes Sénégalais aujourd'hui qui sont morts dans les bateaux, dans les déserts, donc qui se préoccupent de ça et et qu'on l'arrête pour ça et je l'ai dit tout à l'heure à un ami aujourd'hui l'impression que a c'est que l'État du Sénégal avec euh, l'obligation du port de masque cherche de façon inconsciente et par des artifices juridiques inacceptables à museler le peuple sénégalais. Est-ce qu'on lui avait intimé l'ordre de de ne pas sortir, de ne pas quitter le territoire sénégalais? À ma connaissance, non, il m'en a pas parlé et aucune question dans ce sens-là a donc euh, jërëjëf ñoo ngi recevoir maître Amadou Diallo maître Amadou Diallo nag moom mooy ki nga xamante ni euh, moo jiite Amnesty International ba pare di défendre ki nga xamante ni moom mooy Boubacar Seye Boubacar Seye mooy jiite Horizon Sans Frontières ñu ñu téye ko tey bi mu jógee Espagne wàcc fi nga xamante ni moom mooy euh, aéroport international Blaise Diagne maître Amadou Diallo yow mi nga xamante ni yow yaay avocat di layal kii di Babacar Seye ñu wàcc mu wàcc tey aéroport jógee Espagne ñu téye ko lu tax ñu téye ko. Euh, comme ni ma ko waxee sànq si nasaraan. Mm. moom buñ ko téye xamul exactement lu doon téye ko mm-hmm. parce que sénégalais war nañ xam ni Babacar Seye sénégalais la. bu mm-hmm. am jabar ak ay doom yu dund Espagne. Mm-hmm. moom mu décidé ci coobare boppam ñëw toog Sénégal. Euh, créer benn organisation bi nga xamante ne day yëngu ci affaire immigré donc moom balaa muy dem en octobre novembre 2019 jot na génne ay kaddu di xamal ni fonds yi Union européenne xaw Union européenne Espagne. yu jox Sénégal pour gérer affaire immigré yi eh bien fonds yooyu euh, am na yi nga xamante ne leerul gestion bi leerul il faut que ñu leeral ko mu jàppoon aussi par rapport à la situation qui s'est posée par la suite parce que ça n'a pas réglé le problème mu jàppoon pare xaalis bi fu ma waroon dem yàggu fa donc à l'époque ministre bu chargé euh, secrétaire d'État chargé des Moïse Sarr euh, waaw defoon na démenti mhm. donc moom ci circonstance yooyu la décembre chaque année ni mu koy defee dem seeti famille am mooy jabaram ak ay doomam lim jàpp li ngeen jàpp ne moo tax ñu téye ko moom lim jàpp ne moo tax ñu téye ko mooy dafa wax ne dafa am alal ju ñu jëloon Union européenne jël ko jox ko état du Sénégal mu jàpp ne dañ ko luubal loolu da koo waxoon loolu lañ loolu moo tax ñu téye ko. non mu jàpp ni alal bi fu ma waroon dem demu fa. Mhm. te mu ne Sénégal état du Sénégal. Mhm. na toog def euh, réduction de comptes. waaw leeral nit ñi si utilisation fonds yooyu. léegi fii may wax ak yow nii fan la Boubacar Seye nekk. fi mu fu mu wax ni instant bi ñuy wax ni mu ngi section de recherche depuis euh, vers les de onze mhm. parce que tey si suba man bu ñu ma nee muy muy euh, commissariat aéroport mhm. jóg naa bu ma paree juste may audience mhm. dem ba commissariat aéroport ñu ne ma depuis dix indi nañ ko section de recherche kon aéroport la fanaan non deux heures du matin la egsi te bi léegi bu ma koy gis lekkul naan na ndox certes mais dafa feebar ci lu ma dëkk jëlul ay médicaments donc parce que moom dafa yaakaaroon su ñëwee dañ koy déglu rek ñu bàyyi ko. bi nga ko gisee lu mu la wax. nee na moom du nangu ñu koy toroxal parce que instant nii loolu lay nirool comme si dañ koy bëgg a humilier parce que moom amoon na lu mu waxoon à l'époque mu gën Sénégal mu ñëwaat ñu koy bëgg a toroxal bëgg sonal mu ne loolu du ko nangu. du ko nangu parce que moom nit la et aujourd'hui il considère que moom dafa jàpp ni dañu dañu piétiner sa dignité mm. et je pense que euh, opinion nationale ak internationale yëpp dañu ci war a jóg mm-hmm. parce que kii ki nga xamante ne xeexalul boppam mm-hmm. ak ak yelleef immigré lay xeexal mm-hmm. donc suñ ko dugalee si condition yi mel ni dañu war a taxaw pour ko le plus rapidement possible ndax dañ ko tere woon mu génn Sénégal non loolu yaakaaruma ko parce que waxuma ko te interroger ñu ko ci loolu. donc ma jàpp ni loolu amul. Mm-hmm. te ma jàpp ni aussi suñ ko interdire mu gën Sénégal. Mm-hmm. yaakaar naa ne mënul jaay aéroport. Mm-hmm. xanaa kañ kon Sénégal suñu suñu sécurité bi en ce moment ça pose des problèmes. yéen ñi koy layal lan fi mu ne nii ban pexe moo leen dese lan ngeen fas yéene. non instant nii xam nga y' a l' avocat y' a président de Amnesty International. avocat yi suit la procédure. mais au niveau de Amnesty International possible parce que cette situation là est inacceptable ñu jàpp ni Sénégal dañu seetlu depuis quelque temps mhm. euh, bépp doomu aadama bépp nit buy jóg pour xeex ak ak yelleef doomu aadama mhm. dañ lay téye tëj la kaso mhm. pour tiitloo la wala pour bañ nga wax te loolu quand même dans un état droit kenn waru ko mën a nangu jërëjëf maître Amadou Diallo man lay Euh, jërëjëf ñi ñuy seetaan ñu leen di fàttali ni ñu ngi doon recevoir maître Amadou Diallo avocat président Amnesty International di layal tamit ki nga xamante ni moom mooy Babacar Seye Babacar Seye nag moom mooy jiite. Euh, Horizon sans frontières jóge Espagne wàcc fi nga xamante ni moom mooy aéroport international Blaise Diagne ñu teg ko loxo euh, li ñu koy euh, tuumaal mooy ay tuuma yoo xamante ni moom la yëkkati woon teg ko ci ndoddu état du Sénégal wax ne xaalis bi ñu jëloon dëgmal bi Union européenne joxoon Sénégal ñu waroon ko yóbbu ci wàllu xeex li nga xamante ni moom mooy euh, euh, mbëkk mi dañ ko luubal yóbbu ko ci foo xamante ni waru fi a dem euh, c'était tout chers téléspectateurs pour soir d'info d'aujourd'hui restez en prof en compagnie des programmes de la télévision Futur Média et à vingt deux vous aurez votre grand